jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallaahu dem bi ñëkkati jataay bi ci bind yi ñu am ci ashura ñoo ngi tolloon ci tomb bu am solo mooy bi yonent bi agsee waa Madina seet ko bi yonent bi agsee waa Madina seetsi ko bi ñu ko cherché dafa am lu ñu war a tëral ci pénc mi pénc mi di ko doxal loolu mooy li doxalum réew mooy doxalum pénc moo xam démocratie lañ ko tuddee moo xam liberté moo xam constitution lañ ko tuddee waaye day am lu ñuy tënk loo xam ne ñépp a ciy tënku xam naa sax léeg-léeg journaliste naan sartu ndey réew mi dama xamul nag baat boobu moom nuñ koy fiire waaye daal aw xeet dañuy tënku ci dara lii mooy sañ-sañ yi lii mooy li kenn sañut waaw lii mooy li kenn sañut lii mooy yelleef yi lii mooy li kenn yelloowut waaw lii mooy yelleef yi lii mooy lu kenn wut bi yonent bi ñu ko ci wooxee def na acca ñu daal di tàmbali mbooloo mi daje tàmbali caa waxtaan waaye xam ngeen ne ca euh, tàmbali ba islaam dafa nañ tuddee samaaxa samaaxa mooy lislaam dafa yaatu dënn waaw lislaam dafa yaatu dënn lislaam dafa nekk dina ju tolérant moo tax biñ ci waxee yonent bi ne ko dañuy tëral lu ñu dëkk lu ñu dëkke mu ne ay ca mbooloo ma daal di indi article un article un soxna Ndeye Gueye mooy al muslimuna min Quraysh wa yathrib wa man tabiahum mulxaqun bihim wa jaa wala boog fa laxiqa bihim wa jahada maahum umma waxida min naas loolooy article mooy jullit yi jóge Quraysh màkk ñëw fii ak yi nekk Yathrib ak ku ci yokk si ak ku nangoo ànd ak ñoom xare ji ñoom ñépp benn umma lañu ku ci bokkut nag bokkoo ci ku ci bokkut bokkoo ci waaw ñu daal koy euh, tëral ñépp d'accord ca war koo signé bu ñu paree loolooy article bu njëkk bi article deux waaw article deux haulaai l muslimun jamian ala ixtilaafi qabailihim yatacaaqaluuna baynahum wa yafiduuna aanihim bilmaaruf walqist bayn almuslimin almuminin wa in almumin laa yatrukuuna mafraxan baynahum waaw mafraxan baynahum an yuctuuhu fi fidaayin aw aql mooy article deux mooy jullit yépp ak xabila guñ mën a bokk fu mu mën a bokk ñoom ñépp bu jaaxle amee walla dugal loxo ñoom ñépp ay ànd ca dugal seen loxo ca loola te teg ko ci ak maandute te muminuuna yi mooy ñi gëm article bi ñi gëm constitution bi lépp loo ci xam ne nit jaaxle na ko ca say bokk ñooñay bokk jóg moo xam dañuy jotu dara moo xam dañuy joxe ndàmpaay ñu ñépp a koy bokk di ko defandoo loolu mooy article deux article trois innal muminina al muttaqin ala man baga alayhim aw ibtaxa euh, dasia aw ithm aw udwaan aw fasaad bayn al muminin wa inna aydi aydihum alayhi jamian walaw kaana waladu ahadihim ñu ne ñi fekke jataay bii te war ko signé te gëm ko képp ko xam ne song nga kenn ci mbooloo moomu wala nga agressé ci kenn tooñ ko wala nga ëpp ko doole mbaa nga noonoo ko mbaa nga yàqal ko ñoom ñépp dañuy ànd nekk benn loxo gàllal loxo boobu même su fekkoon doomi kenn nga ci mbooloo mi même su fekkoon doomi kenn nga ci mbooloo mi mbooloo mi ñépp ñoo ànd teg la loxo mbokk yi xool leen yonent bi mu agsee jina xam naa tey peut-être yéen mu ngeen tuddee dialogue bu fekkee li ngeen di wax dialogue mooy loolu waxtaan walla concertation walla li ñu tuddee al mushawara waxtaani penc mi waaye article bu ñu indi rek mu ne je suis entièrement d'accord <laughs> article 4 waaw laa yaqtulu mu'minun mu'minan fii kaafir wala yansaru kaafiran ala mumin wa in salima al muminina waxida laa yasa laa laa yusaalim mumin duuna mumin fi qitaalin fi sabilillah illa ala sawain wa adlin baynahum article 4 maanaam ab jullit du rey ab yéefër ñu rey jullit ba ab julit du taxaw di dimbale kéefër waaw di dimbale kéefër moom daal ñoo yem képp ci maandute bakkan bi bakkan bi ci seen diggante loolooy article 4 article 5 dimmatullaahi waahida yudabbiru alayhim adnaahum wal muminuun baaduhum muwaali baad doona naas ñu ne kaaraange yàlla genn kaaraange la kaaraange yàlla genn kaaraange la ki gën a ki ñu jàpp ne moo gën ñàkk solo ci jullit yi kooku eh, walla ci ñàkk solo ci pénc mi moo kañ jàpp ne moo ci gën a am solo ñoo yem képp ci kaaraange ak yàlla googu waaw kon boobu daal di leer mooy li ñu fiy tere ku ko mën a def ak koo mën a doon def nga lu ñuy tere dañuy dal ci sa kaw article 6 waaw laa yaxillu li muminin aqarra bi fil madina wa amana billahi bil axir an yansura muhaddit waaw aw yu yu wii waaw daganul ci kenn koo xam ne gëm na yàlla te nekk ci biir mbooloo mi muy fat ku weddi yàlla mbaa mu di ko ci dimbale walla mu koy aar loolu ku ko def rëbbum yàlla dal ci sa kaw su boobaa it kon article yi nga xam ne ci la ñu nekk di ko tiim euh, al dafay dal ci sa kaw moom tam loolu mooy article six waaw article sept alyahudu yunfiquuna ma alyahud maa daamu muhaaribin waaw yahud yahudu bani awf umma ma al muminin lil yahudi di diyaanuhum walil muslimina dia di diinuhum lil yahudi diinuhum walil muslimina diinuhum illa man zulima aw illa man zalama wa athim fa la yoqo illa ala nafsi wa ahli bayti article sept mooy juif yi comme ñu ngi ci madina ngeen nekk fi dañuy dépenser seen alal li fekk am na ñu leen di tooñ moo xam yahud ba ni awf la wala ba yahud ba ni awf ñoom umma lañ ma al muminin bu ko defee yahud yi yor seen diine mën yor seen diine ko defee dëkk bay dox ci laïcité waaye laïcité bii nag bu positif la waaw laïcité bii bu positif la du laïcité bu négatif waaw sunu sunu waxtaanu maak euh, professeur Penda Mbow waaw yàlla na ko yàlla yokk wér waaw sunu waxtaanu maak professeur Penda Mbow laïcité bu Médine waaw bu positif la wala bu négatif waaw wala est-ce que daa am ci àdduna laïcité bu négatif ah oui daf ci am bu positif ah way bi positif mooy bi nekkoon ma dina bi négatif mooy bi xew ci àdduna léegi waaw <laughs> professeur Penda Mbow ku ku xam yooyu la yàlla na yàlla yokk wér waaw <coughs> mu ngoog ñu ne nag moo xam da bokk ci yahud yi moo xam ci musulman nga bokk boo tooñee dun ànd ak yow dugg ca tooñ ga fa innahu la yuqau illa li nafsihi wa ahli baytihi aw kama xaala ku tooñ daal fi ne yàgg sa tooñ la défendre sa bopp waaye mbooloo mi nag duñ jóg ànd ak yow ci tooñ gi inna ala alal yahudi nafaqatuhum wa alal muslimina nafaqatuhum dépense nag bu dépense jotee jullit yooyu làmb seen poos def ca juif yi làmb seen poos def ci waaw ku ci jóg nag di xeex kenn ci ñi fekke woon jataay bii yahuud yi ak muslimoon yi ñoo jóg xeex la maanaam ku ñëwoon di xeex si muslimoon a yahuud yi ak muslimoon yi jóg xeex la moo tax euh, article boobu bi ñu tollee ci Badar bu doxoon <laughs> bu doxoon benn juif du des mag Madina kon bu doxoon waaye moom daal mu ngi noonu rek wa anna baynahum nasr ala man xaaraba ahla hadihi sahifa waaw article huit article huit kullu ma kaana bayna ahli hadihi sahifa min xadat aw tijaara ah yaxaafu fasaadu fa inna maradduhu ila llahi azza wa jal wa ilaa muhammadin rasulillah ñu ne lépp loo xam ne lépp loo xam ne dafay jur xuloo ak béjoo ak xëccoo ko yàq dañuy delloo yëf yi tabaaraka wa delloo ko ab yonentam luñ ca doxal rek pénc ma doxal ko loo ko mooy rek bu ñaar di béjoo ko xuloo te amuñ ko leen àtte Euh, mën nañoo sori lool waaw loolu mooy article huit article neuf man xaraja min madina amin wa man qaada amin illa man zulima waasim nee na ku toog ci madina waa madina ñoo lay sécuriser ku toog ci madina ku génn it ñoo lay sécuriser lu dul koo xam ne dangaa génn di tooñ wala nga génn di bàkkaar yi loolu nag boo ko defee euh, du discours bi discours bi du la du la défendre wala constitution bi du la défendre mooy bi ñuy bi bind nii mbokk yi xam naa yéen ci seen bopp yéen a ngi analyser ko xool bu am peñ ci tëralee yii te di ko doxal jàmm ji ni muy baree ah jàmm ji ni muy bare article bi ci mujj mooy dixième bi inna allaha ala asdaqi ma fihi asahifa waaw wa abarri wa inna allaha jaarun liman bar liman barra wa taqa kama xaala nee na bi mooy yàlla moo gën a dëggu kuy dëggu li ñu tëral nii buñ ko sàmmee mu teg leen loxo buñ ko sàmmut loxo ba teggee ko waaw mbokk yi waa ma jëne yépp jullit yaag juif yi bokk signé fukki article yi ma ne ci lañ déggee abu jandal mi waroon wax démb ndax dañ caa boole article bu ab jullit jógee ci jullit yi ñëw ca ñoom kenn du ko toppi ku jóge ci ñoom nag ñëw cee dañ koy toppi maa ngi koy wax bërki démb ci xutbab daaru ci bu ma ne aha kay article bi ci li xel nangu danga naan ah waaye boo demee tuuti xalaat ko danga wax ne noonu la mën a demee ndax yéefar bu jóge ci bokkam ñëw ci lislaam bi muy ñëw jëmm ji dafa ñëw ak xol bi ginnaaw jëmm ji daa ñëw ak xol bi jërul jël si walla boog buñ ko jëlee di yóbbu jërul dàqi ndax bi bi ñu koy jël siwaat di ko yóbbu ci ay bokkam lim gëm ba gëm ko ba ñëw ci jullit yi loolu lay yóbbuwaale su fekkee nag ab jullit moo jóge ci jullit yi dem ci yéefar ya moom it bi muy dem yóbbaaliwul xol yóbbaaliwul imaan jëmm ja rekk a dem moom it jërul toppi foofu boo fi taxawee lu am solo la ci logique bi nga xam ne ci la yëfi doon tëdd ma ne am ku yàlla na toon ak ñu koy wax abu jandal moom mu jóge ca yéefar ya ñëw ci jullit yi ñu jël si ko ñu jël si ko nga xam ne moom bi muy ñëw kon indaale na imaanam indaale na ab xolam indaale na gëmam léegi nag ñuy xëcc ko nag di ko delloo ji jullit yi di xool ni ñu koy diri muy dem suñu mbokk mala ca mbuur abu jandal moomu lañ lañ ko tudde wala boog noonu la tudde boppam abu jandal mbokk yi alayhi salaam daal di ñëw ci pénc mi nangu la jo la la jóge ca waxtaan wa lañ ca tënke ñu bokk ñoom ñépp di ko dund bu amee ku teg yoon wa mooy yahood ya waaye moom mësu koo teggi moom mus ko musta teggi tànkam lañ xastëral rek ci la tëdd ca lay dox alayhi salaatu wasalaam daa di yor nag poli politique gu intérieur maanaam politigu boppam nag la yor politique boppam la yor nag luy politique boppam mooy ni juif yi di lablante bokkut ak moom ni muy lablante ni juif yi di leblante bokkut ak moom ni muy leblante ni ñuy dimbalantee bokkut ak ñoom ni ñuy dimbalantee ni ñuy taxawoo ko jaaxle bokkut ak ñoom ni ñuy taxawoo ko jaaxle léegi nag gaa yi gis seen bopp ci politique yonent bi ñëw tafu ci moom mbooloo mi nga xam ne moom la moom la samp di yokk waaye fu mbooloo mi yokkoo ca mbooloo yi la jóge ginnaaw moom moo fi nekk moog yahuud yi ak nasaraan yi ñoom ñett ñoo fi bokk nekk moom mbooloo mi mi ngi yokk lu yokk ci mbooloom bi rek dafa wàññeeku ca mbooloo mee <laughs> waaw lu yokk ci mbooloo mi rek dafa wàññeeku ca mbooloo mee waaw lu am solo nag la yokk mbooloo ak yu ni deme gis nga fi ni ci parti parti yi ne ci penc bi bu waay jógee ci parti dem ci parti yokkul mbooloo waaye bu ñu amee koo xam ne ki bokkul ci benn parti kooku dafa yokku si kooku dafa yokk si moo tax léegi ku xamoon xel transhumant ni mu demee am na ci yoo xam ne du métti danga jóge ci néeg bii dugg ci néeg bii bokkut koo xam ne kii nekkul ci benn néeg waaw loolu tam am na solo lool ci diine ji fi ne nekk ci nit pour bëgg koo génne ci diine dugal ko ci diine dafa bokk ci benn association walla menn mbooloo nga bëgg koo jële ci mbooloo mi mu nekk dugal ko ci meneen mbooloo bu dee ci lislaam yóg koo koo benn membre ci ci yëf yi soo demoon nag ci koo xam ne ki bokkul fii bokkul fii nga jël ko boole ko ci mbooloo mbooloo mi yokk na kenn mbooloom lislaam mi yokk na kenn alayhi salaatu wassalaam tàmbali boo ñëwee soxla financement loo soxla deux cent million laa soxla buñ ñu la lebalee deux cent million booy fay deux cent millions képp ngay fay waaw frais de frais de dossier euh, nangam nangam ñoom déedéet léegi nag ñiy leb day mu jàgg foofu la ñuy lebee waaw ba sa tool di bëgg a booy jullit yépp ànd sa tool bay ko fi ne looloo ngi xew ci saalum ba léegi mu ngi xew ci bawal ba léegi euh, ak sunu sunu sunu sunu sunu réew mi ci ñi nga xam ne ñoo féete ci kaw mooy nu Seck comme daa bëri nelaw ci tay ba cekkeen nit ñi bay muy nelaw rek ba nawet bi sori ñax mi nara nangu tool Cerno Seck waa tay ba cekkeen mbokkam yi nekk càlle mbokkam yi nekk cekken mbokkam yi nekk bangaaj ñépp ay ànd jël seen ay gopp walla jël seeni gopp dem tool cerno e, tàggale ñax meeg gerte gi xetti li mbayam moomu loolu mi ngi xew ba léegi mu ngi xew ba léegi <laughs> waaw moom xam na ci dara loolu saaba yi noonu la def léeg-léeg ñu ne diw yow kat nee nañu sab sang ginnaaw jaam la sab sang nee na boo ko jëxalee juróom fukki tàndarma bañ jàpp mu goreel la saaba yi dañuy xëy rek ànd ak moom ànd ca jiga te tabarkalla di arrosé nangam ba tàndarmay jàpp ñu goreel ko mu ñëw toog léeg-léeg ñu ne diw ab sangam nee na bu ko joxee quatre cent mille mu goreel ko saaba yu cotiser su matee baax na su matul ñu continuer cotisation yi ba baax ñuy am quatre cent mille yi jox ko waa ji mu jox sangam mu goreel ku mu ñëw toog affaire bi daal day waar dégg ngeen Ousmane a Affan kero ba mbooloo mi bëggee ndox ak taxawaay yu taxaw yu am solo yam def waaw mbooloo mi ba mu bëggee ndox Ousmane jënd ab teen jox leen ba mbooloo mi bëggee xeex uney na Ousmane génne financement jox leen waaw léeg-léeg ñu li xam ci jàkk ji am ko kobos Ousmane ne kër ga dara ko fa mu roppi jox la affaire bi commencé nag eh, tabaarakallah mbokk yi ànd nañu yonent ba mu agsi Madina commencé naa liggéey bu nu yàlla may dund ba ëllëg nu mattali ko ci wàllu liggéey booboog yu am solo yi nga xam ne tëral na ko fa jërë ngeen jëf ak seen fa rajo Kachif jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax a yor seen i këyit bëgg leen fi mu fàncal xibaar yi toi fi mu fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S la ci bitim réew yàlla na ñëw la ci biir réew mi yàlla na jar yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci sunuy poos dara in uridu illa al islaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu